ma xalaat ne mën naa débuter ak ñoom ñu organiser benn festival boo xam ne day tax nu mu tuuti tuuti ci période yi nga xam ne jamono yi nii daasalaam kuy ñëw fii sa dang ciy moytu soo déggee ne dara am na fi loo xam ne dañ koy organiser si ñetti fan di nga xam ne daasalaam moom jàmm kese la parce que daasalaam dëkk bu neex la te arrondissement bu Niass Yab bi amul morom. moom jàmm sax na fi te mën nañ jël initiative boo xam ne dañ koy sukkali dem ci kom te moom la ñu bëgg a wane nii.

fu mu ne nii ñun ñooy raam ak suñuy propre moyen tey soo gisee ñu am ndaje bi fini c'est pour évidemment ñu feug ay buntu ño xamné war nañu mëna jox loxo té franchement kontaan nañu fini parce que nu mu touti tuuti am nañu ñoo xam ne tey nañ sen loxo ci festival bi te xeebunu waaw nu ngi naan mu gëna dem kanam deuxième édition bé benen édition waaw. moy mooy nu mu tudd si objectif bi parce que fi tam. ñun dañuy dem ak oto dem ci suba dellu si fii bëccëg dem ay 3 heures du matin dem si Ziguinchor dellu si at def suñuy activité comme ñëpp mais malheureusement côté bi foo ko tudd rek xel day ñaaw waaw moo tax bëgg nañu daal moom kép koo xam ne moom yàlla def na ne ñëw nga ci côté bii nii diggante yooyu noonu peut-être di nga gis tam ak sa bët te ñu ngi ñaan événement bi ñu dugg si si bisimilah rahmaani rahim génn ci si alhamdulilah rabil alamin